tant que dañu wax ci conseil constitutionnel mu pose la la problématique des institutions alors yow institutions yi ni mu nekkee ni mu tëggoo ni euh, da koy bàyyi en l'état wala jàpp nga ne am na réforme boo xam ne il faut renforcer toutes je pense que euh, euh, adduna moom boo ci doxee mbir moo gis boo ko jàllee war mu gën a renforcer institution je pense que mënuñu def économie réforme administration administration nag ay pàcc yu bari la Quand tu prends le cas de la justice, aujourd'hui, il faut euh, rendre la justice, en tout cas, euh, beaucoup plus indépendante. Parce que bu nit ñi amee perception que la justice n'est pas indépendante mooy la question que tu ma bi ma laaj léegi parce que boo demee bu mën a xalaat ni nit war naa mën a guerre magistrat bu nekk conseil constitutionnel alors euh, kooku dafay poser problème ñu xoolaat suñuy institution yëpp et moi je suis d'avis et vraiment loolu bokk na ci li nga xam ne dina ko def c'est de euh, de faire des états généraux où je amaguma tour bi gën parce que il faut que concept bi ñu euh, xool ko ba mu mel ni dañu pour éviter mel ni dañu bëgg yàq li fi nekk non c'est pas ça ñu am waxtaan boo xam ne dañu ko def de concertations nationale sur la justice dès le mois de mai nga xam ni les acteurs de la justice ñoom ñooy toog waxtaan ci seen biir avec l'aide de l'État pour wax ñu lan la ñu war a améliorer ci justice euh, avocat magistrat naturellement greffier huissier de justice agent yi nekk yu yor euh, les prisons euh, commissaire priseur notaire ñoom ñëpp nga dajale leen ñu toog waxtaan sur la justice boole ci naturellement secteur privé ak euh, euh société civile ñu toog jox leen diir bu gàtt. ci weer. vous restez président du conseil supérieur de la magistrature. non réforme bi mooy ju mooy andi loolu yëpp. li ma bëgg mënoo li ma bëgg moom mooy bu leen delloo mbir mi ne leen euh, mbir maa ngi nii quelle réforme mettre en œuvre pour que ñu d' accord ni justice pour que ñëpp nangu ni que justice bi ñu am ñu am confirmation que c' est une justice indépendante parce que jusqu'à présent. Euh, nous savons tous que notre justice est indépendante. Mais de temps en temps, on a eu tellement de dossiers, les gens se posent des questions. Il faut que ñu toogaat waxtaane ko. donc yow euh, Toudougo doo toog comme ne ñi nga ne euh, dootoo nekk euh, président du conseil supérieur. de la magistrature non xam nga état ni muy doxee mesure boo gis ko boo xamee état ni muy doxee li gën mooy nga woo acteurs yi tu dis magistrat huissier. avocat notaire yéen a seq justice ku ci nekk am na lu mu gisee justice te ñoom ñoo ko gën a xam maintenant am na loo xam ne nag décision wu prérogative puissance publique la ñoom bu ñu defee seen réflexion ba pare ba wax la li ñu bëgg ñaata lay jaar ñaata tribunaux la ñu war a tabax nan lañ koy organiser yan texte la ñu war a modifier parce qu'il faut parler de tout ça nan lañ koy organiser kan moo war a yegg tel grade kan moo war a occuper telle responsabilité buñ ci d'accord bu boobaa texte yi war nga jël ko et tu mets ça en œuvre changement yi muy jur nga conduire réforme yooyu en tout cas moi l'expérience que j'ai eu des réformes parce que j'en ai beaucoup fait def naa ay réforme ci position yi ma njëkk a jaar loolu mooy li gën a efficace bi ma nekkee impôt bi ma bëggee ñu soppi impôt dama dajale ñëpp ne leen qu'est-ce qu'il faut faire amoon naa sama xalaat mais ñoom laa njëkk laaj ñu mën nañ def nii nañu séparer service bi ak service bi nañu def réforme code général des impôts nañu def réforme organisation nangam ba lépp pare bi ñu demee ba lépp pare ñu xool ñaata lay jaar lan la ñu war a tabax même nañuy tabaxee nan la ñuy toogee ci bureau yi lépp dañu ko gëstu. donc réforme lay doon. réforme lay doon dangay def benn réforme nga woo leen ne leen vous voulez quelle justice réew yi gën a màgg yi ñu gën a naw lan la ñu am. nan lay doxee ci réew yi ñu lan mooy suñuy aada nan la war a doxee suñu biir ki na jox leen weer toog di leen déglu bu ñu ko defee ci biir mois de mai bu ñu paree juin juillet fekk ñu nekk ci vacances nga liggéey texte yëpp prochaine rentrée des cours et tribunaux te fee nga jël mesures yi ci war. alors euh, euh, dañuy war a tabax nangami tribunaux nangam lay jar dañu ko tabax ci ñaari at tabax ci ñetti at. dinañ recruter nangam ci ay magistrat nangam ci ay greffier dinañ leen former ci matière bi bii doxul léegi ci seen biir avancement yi nii lay demee kii ma war a occuper te responsabilité ba lépp leer bu lépp leeree rek après doxal ko dina yomb te booba décision bu ci mënti génn ñëpp nangu ko. la problématique de de l'hyperprésidentialisme ñu ne Sénégal président de la République il phagocyte même les autres institutions président de la République dafa am doole. Euh, mu am ñoo xam ne sax nee doole boobu moo tax poste vice président ñu war koo créer moom ay prérogatives yoo xam ne elles seront dévolues au président de la république euh, da ngay garder euh, la situation en l'état wala yow di nga di nga kase man duma ma def réforme je ferai beaucoup de réformes mais du ma def réforme en tenant compte des positions des personnes non kuy def loolu doxul loolu baaxul du jëmale réew mi kanam réforme du ñàkk réforme du du ñàkk mais réforme bu nekk fay fekk nga teg ko ci loo xam ne day am lu muy yokkal askan wi mën nga nekk président tu as tous les pouvoirs et tu délègues tous les pouvoirs presque tous les pouvoirs dans notre constitution il est prévu que premier ministre mën na am ay pouvoir même de nomination euh, xëy na demain il faut aller à une vice-présidence je ne pense pas que ñu war a tout de go pour régler des problèmes ne dañuy def vice-présidence ak là je ne pense pas que mu doon loo xamante ni. mais yaa ngi euh, envisager un poste de vice-président. non je n'envisage pas je n'envisage pas. je dis une réforme elle doit être justifiée du ma def réforme parce que tout simplement bëgg naa régler problème mu may mën a nuyu kooku amul euh, du noonu la ñuy téye réew du noonu la ñuy téye ay institution réforme bu dee am da ngay xool yan jafe-jafe nga am man defe naa ni jafe-jafe bi nga xam ni am nañ ko ci sunu réew. il faut d'abord ci sama gis-gis découpler la fonction politique de la fonction d'État